Baat maa ngi ba allez li dafa manqué. Mhm. Balla loolu la am moo tax mu gagné. moo tax ma bëggoon ñëw nag ci Balla. waaw Balla démb Balla boo xam ne bi mu jëlee combat bi dañ ne Balla day xaru. ñu def signature bu njëkk li arène nationale ñu ne Balla moo moo ki mbokkam nañu fatu ndax kii bu ko tafaatin jàppee Balla boo xam ne dañ ne woon jeexal na. tudde ko tur wu ne ay faw say ne gaynde gu màgg a tax lu ne Balla mënatul am doole lu ne moom ma dégg nga ko grand zal mais Balla ñëw Balla dégg na ko message ba jàll na ba Balla mu jaral ko mu dem INSEP mais mu ñëw fii tamit école de Balla Gaye bi yëpp mu regroupé xale ànd ak ñoom mbay Samb di liggéey parce que Balla dem grand salle ah daa mel ni contact na de Balla daa mel ni am na réflexe démb de Balla daa mel ni démb moom na boppam daal grand salle Balla forme bi parce que Balla même laam ji jeex sax da ngay gis ne Balla mi sonnul de ndax man tiim naa ko. waaw am na fu mu jàppanteeg Balla. waaw da ngay xool ne da ngay gis biir bi mu ngi dem di ñëw nii. mooy li ma la wax rek Tapha li mu mag bi ñu àndee ñoom bi ñu demee ñoom ñaar ñëpp uti doole ba ñëw. ba ñëw waaw. dafa am lu ko Balla ëppalee. Balla ku ko gis xam ne dem moom moom yaramam mu ngi déplacé wu mi ngi dóor mi ngi def ay se décembre. Mhm. Balla démb am na résistance. Mhm. am na vivacité. Mhm. am na réflexe. parce que loolu la bëree li mu bëree rek laa expliqué nii waaw bien sûr li tafaa manqué nag loolu la bala am loolu la bala am loolu la bala am bala boo xoolee lan moo mhm. ko manqué am na fu ko tafaa jàppe di ko jéem a añ nii na ko résister génn ca même du jàpp na ko téengee ba droite gàll ko loxo di ko dóor placage bala tam bala résister génn waaw te te pourtant foofu mhm. placage bi lan moo tax tafaa réussir ko mhm. loxo bala daa féete ci biir loxo bi loxo bala daa ne ci biir loxo tafaa ci biir loxo tafaa da koo féete biir da koo féete biir ok mais foofu Tafa. Mhm. loxoom daa waroon agsi ba ci loosu bala bi. loxo Tafa. loxo Tafa waru ko yem ci épaule bala bi daa waroon agsi ci ci ci ci. kër nopp gi. merci beaucoup. bala tamit dafa yeewu. waaw ko defee loolu taxaw sur place. dafa def benn pas ci daw. <laughs> waaw moo tax mu rëcc. bala daal champion la. non champion la. loolu man daal loolu laa bëgg ci sportif. waaw Tafa nag loolu moom moo ko manqué démb ci combat bi te yàgg naa wax yii bi. Tafa dafa yéex trop léegi day waaj te lamb amut. mais mais grand salle kor bi dama gis ne Balla bu koree du dóor dama ne day fat loxo da Tafa bi mu jàpp ne danger la ba pare di wu. te loxo bi loxo bi moo gën a gaaw. xam nga lan moo waral loolu Babacar. waaw c'est parce que bu taf koree Tafa Tafa mooy nangu sëg. ah sëgg bi tafaari sëgg. bala bu koree nu muy def moom. du day waaw waaw waaw day day day génne boppam. di ko waaw léegi bu ko koroon mu sigi teel comme moom. Mm, seen bopp yéen a ca kaw seen bopp nekk ci kaw uppercut bi na daal uppercut bu daal. am na ci trois uppercut yooyu dafa dal. mais mais yooyu man laa gën a contre ci combat bi dafa dal yooyu dafa dal. lii moom ma gën a métti ci combat bi Babacar. trois uppercut yooyu mu xaar bala téye di dóor mu sëgg fa rek. Mm-hmm. mel ni dañ ko fa takk. beneen bi mooy am na fu Balla jàpp ci ngemam di arrière Balla booy bi jàpp ñaari loxom Balla di arrière di dóori épirki mu topp ko nangu topp ko Balla di dóor di arrière mu topp ko mais pour lan dama boo dóoree benn damay roccee ku génn booy ñëw ma dóor man sama croisé ci biir arrêté la pour arrêté la bon boo waree daanu nag da war a daanu bésam am bésam ñàkk moom du bésu am ndeysaan mais karaaj daal bégee waaw li may wax ni na ci liggéey quoi ndeysaan na liggéey ci liggéey quoi mais mais mais mais ardo bi bi xeex boobu amee ba tafaajal ay percute yu bëri ba dem ci ardo ardo est-ce que amul lu muy wàññi ci mbër bu fa demee wala est-ce que day yokk mbër courage non xam nga nag Babacar mhm. tey boo ñu la dóoree ba nga dem ardo da ngay gis public bi supporter mbër bi ñëpp koy jóg yuux wanda waaw mais nag man loolu duma ma ko d'accord benn côté mënuma bëre bëreeti demut ardo ci contre Eumeu Sène ah kay bu métti ah, sax voilà booba daal dañ ko dóor mu kaw def trois appuis merci beaucoup bi mu ñëwaatee lu mu def dafa réagir. Mhm, euh, mbër mu dem ardo bu ñu yuuxoo. Mhm. Lac de Guiers 2 yuuxul ba suba li jëntiwul loolu boo bëree bëreeti war nga am matiru biir géew xam ne lu ne mën na ci am lu ñëw war nga ah, ko mën a yuuxu daal war ay yuuxu war la perturbé parce que man dama seetlu ne grand salle Tafa dafa mel ni bu mu demee ardo ba ñëw dafa mel ni daa perte moom combat bi moom daa mel ni bokkatu ci waaw léegi yow bu fekkee Babacar bu bu fekkee da ngay bi mu demee ardo foofu noonu mhm. entraîneur am kor bi ko waa ji kor ba def ko loolu lan mhm. moo tax mënu ko wax ne ko loolu bu mu waa ji da seen combat bu njëkk ba def na la lii waru la ko defaat junga ba def la ko nii ba nga dem ardo waru la ko defaat mais kor boobu est que bi mu demee ardo bi mu ñëwee bañ na ko dafa ah, amaat na <laughs> kor kor ba amaat na kor ba dafa amaat waa ji dóoraat ko waa ji dóoraat ko si kor boobu dóoraat ko ci kor boobu ci biir foofu fa la jël ba amaat ci del ci waat boobu caxabal bi ko balla caxabal tamit